nuyu di leen ziar di jaajëfal comme niñ ko tàmbali defee rek saa su nekk noonu lañ ko defaatee tey ma ànd seeg sama consœur muy Fatma Dia ñu ñëw euh, togg ak ki nga xamante ne mooy Niang bu Ndaw diggante Niang bu Ndaw la woon ak Bour Sine coow li bëri woon xas-xas loo bi bëri mais lépp ci jaayoon combat bi la yàlla may ndam ki nga xamante ne mooy Niang Ndaw ñu koy wax félicitation di encourager ki nga xamante ne mooy Bour Sine di ko wax ne ki ko daan war na ko daan làmb la mun ta weesu làmb waaw Paul maa lay fay maa lay fay bu baax ginnaaw ma sant yàlla juddu si yéen sant sama ñaari waajur di ñaanal sama papa fu mu tëdd yàlla yàlla xaare ko àjjana xam nga su ma doon toog sama jumukaay seex di leen nuyu bu baax nuyu seen waa kër waaw du nuyu waa bu baax a baax a baax di leen sant di gërëm bu baax gis naa tamit mobilisation bi kontaan naa si ñoom bu baax a baax baax du nuyu ñëpp di sant ñëpp di jégaluwaat ñëpp. aja pël ñu ngi lay ziar ah, di ziar ñëpp ñu fi nekk comme que ñaar euh, temps amul wax dëgg yàlla def ñu koo def rien que pour cër bi mu ñu jox comme que day génn aja nañ doxal ci question yi gàtt yi. ayca ñaar ñu ñëw ci combat bi yaakaar naa waxoon nañ ci mais dinañ ci waxaat dañuy ñëw directement si sa diggante ak Bour Sine bi arbitre mu ne biñ ko jëlijee mu ne xam na euh, pièce bi ngeen ko teg da koo bëgg a du ku ñuy 11. ba tax na tey mu mel ni loolu mais ñëw ñu doon comme ni ko waxee woon lan moo waral ñàkk xeex bi. man xeex moom moo ko bëggul moom moo daw sampu jaaga bi di moom moo daw sampu jaaga bi ñëw ñëw ñëw bëre si ma bëggoon xeex ak moom wane wane nañu wàllam man dama complet nee naa la aduna lu si nekk daam app app bu ñëw man xeex njëkk a jàng waaw xeex laa njëkk a jàng booyaa moom ma fa fayaloon ba bërigu ma sax arène ah bon sànni si si per toon yi koy ñaanal suñu borom bi yërëm ko xale ko àjjana jàng naa xeex bu baax mais ak coach Room ñoom zil mais nekkul na làmb da ngay ñëw mën lépp wane lépp parce que combat yi si kanam bëri na waaw mooy loolu yéen ñaar gis ngeen jàppante nga mel ni ku wàcc jugaat gars yi ne bu entraînement amutoon tey musiba dafay am waaw foofu amoon foofu lan foofu dama ko door gauche mu daw daal may sàcc bëgg ma bu ma dóor plaque ma génnee sama loxo léegi bu ma ko fàqee léegi man jàpp ma ci ngemb li te su ma forcé mën naa rëcc def kat appui léegi ci laa génn tas yaakaaru bëre bi jàkkaaroo waat ak moom. foofu da nga gis ne xëy na bu xawoon oyof bëre dina am. non am na doole moom non bëri nañ buur am na doole na parce que moo fàqee dafa raam jug. non jàppoon ne maanaam bi mu la fàqee noonu nga rëpp da ne boo xalaatul woon quatre appuis mun na am. non man maa man ko fàq mu rëpp quoi ma féete ko kaw mais man foofu instant jàpp ma quoi pour egg action moo tax ma bàyyiwaat. pour mu jug ne daa diis. non non man maa ko bàyyi pour ñu defal leneen ma daanee ko leneen. action kenn du ko forcer. maanaam yaa def lu la neex. waaw action kenn ko forcer. Fatou ma doxala. atia ñaa euh, sa diggante Bour Sine laay wax. waaw da nga ak say morom tey nga jël sa mag muy Bour Sine nga jël ko coow li bari. ci cadre xeex. nga am loo ñu wax ba nga jógee voyage. ne combat bi dafa am foo ko teg ne te Bouba Sine li nga waxoon yëpp tey da nga koo da nga koo jëfee tey ci biir combat bi ñaar doon natt boppam wala tey da nga doon wan tey mbër mi. moom moo ñëw. non dama am lu ma métti xam dama am lu ma métti. Ah, dama jël am du ma tudd kenn sax. Ah. daa am combat bu ma bëree mu war mu yàqu ma jël Tapha Gueye déw ma dégg lu ne. yaa may dégg. Ah. laa mujj yàqu xam ma dégg si wax yu nekk parce que man li ma fi def waruñu ko fàtte quoi. lan nga dégg lan nga dégg arme bu ngéwél la loolu rek jeexal na làmb. Mhm. yaa ngi dégg daal léegi ku mhm. ma ci ruubu moom loolu moo tax ma vasé wu jël buur sin pour wan ni léeg-léeg daal mënoon defar ah, loolu la ko xam nga daa doon sëfë rek. koo xamante ni ah. dem ko Gambie voyage def sa xaalis. ñëw ba semaine combat ñu ne ki nga bëgg du bëri mën nga toog nar a perte. mën mhm. nga toog tam contrat normal tënk ma nekk sama yoon. moo tax loolu taxoon nga doon vacances waaw moo tax ma dem jël bourse bu diis bi ñëpp mënu ma nga def fa 3 mois suma juumul ak ay ak ay jours lan la woon voyage bi da doon yokk poids wala dafa am lenn loo xam te ne moom moom nga doon kii sa yaram. bu fekkee ci côté poids. ma macha allah. du Boursine sama carrière laay samp. du Boursine laay moo tax ma génn waaw itam naa liggéey na am naa 120 kilos. Mm. man lu ma naa ko toll si laa am. waaw ba ma ñëwee itam. dindi dindi war naa poids bi ci ay ay semaines yu gaaw. xam nga tey dama war a wan loolu loolu noonu misaal la pour waa Guédiawaye ñu xam ne suñu ma jàppalee dinaa nekk champion. ok waaw. ñaar gars yi ne ñi dem Maroc ñëpp ak ñaar dafa am différence. Mhm. bi nga nekkee Maroc lan nga fa nekkoon ba tax nit ñi ne ñaar bi mu demee Maroc ak ñi demoon différence am na. man ba ma demee Maroc 5 heures du matin laa doon jug fu ma doon entraînement yi ville dafa xawoon a sori 5 heures du matin chaque jour 5 heures du matin laay jug ah, ma sama xaalis di jeex ma jël bus bi. waaye di jël bis toog si biis bi di entraîné suba ngoon di ñëw pour nga gis ma Maroc sax ma génn ci mbedd bi entre nga ma gis ma jóge géej barki borom daaru géej ak jour màggal Tuubaa bi noonu laa génn toog si gars yi parce que tey xam ma waaw sama famille. Mm-hmm. ñu ne war a dimbali ko waaw. Mm-hmm. waaw dañu sonn sama papa dafa sonn géej waaye mm-hmm. amu fi kër amu fi dara. ba gaañu. waaw dama doon ñaan mu fekkee lii sama yaay sama yaay sonn sama ay mag sonn. man waruma fooyee sama bopp. waaw sama famille dañoo sonn pël fi dund naa fi lu ne. nekk nii dund naa fi lu ne si àdduna. waaw sama papa doon dawal taxi di bañ di siiru taxi. waaw ba xëy gaañu bàyyi ma ak sama ay mag yàlla def dara si man kon loolu du ma ko caaxaanee quoi. waaw pël man su ma su ma toogee sanguwuma du ko xalaat. mais su ma toogee duma entraînement dama koy xalaat. dama war a jàppale sama famille. ñaa euh, ñu ñëw ci li nga xam te ne mooy ci combat bi gis nañu da simmeeku ñëpp apprécier par rapport ak Bour Sine ñu ne Lac de Guiers chaque jour finition bi Lac de moo koy def wala tey finition bi ñaa moo ko defal boppam. non ndax gis nañu ay quelques entraînements nga entraîné ak ki nga xam te ne moom lay. non Lac de Guiers entraînement la Lac de nit ñi maanaam li ñuy waree noonu loolu ay séquences la rek xam nga tey ñaa ndaw daa am tey man sama génération dafa maanaam moo fekkee publier entraînement damaa fekke génération boobu nekkul maa ko war a génne quoi sama génération la yaa ngi dégg léegi man loolu la ñu war noonu ay science la rek. loolu du entraînement yi loolu ay science la leen woon dagg dagg rek. Mhm. mais li ma ko sax wane. d'accord mais liggéey ngeen. du lu ñuy entraîné dëgg. loolu du génn. mais liggéey bu baax. d'accord liggéey nañ une contact mu simmeeku contact ak man bàyyi léppam contact ak man di jàppanteeg man di simmeeku di mbëkkanteeg man. di contact xam nga koo oo ma fayam daal la de guerre waaw victoire bi dama ko ko may di ko wax ni ko man maa ngi sukk say tànk rek waaw sa rakk sa lépp laa di ko ñaanal combat mu ngi Siteu yàlla ko yàlla may ndam bu sedd guy incha allah macha bu ko ñaanal ndam Alioune Seye 2 yëpp di ñaanal cat yi ñu am combat ñoo bëri man. ayca ñu ñëw si sa adversaire xam nga làmb day tàngal yaramu nit ñu jëli ko mu ne ñaa bu ma daanee ma bàyyi làmb tey lan koy wax ci loolu. non non loolu dara waxul làmb la rek. loolu moom dara loolu waxul làmb rek Bour ko xam ne mbër la wax jee nekkoon nii mais man xam naa ne mbër laa moo tax ma dagg sama billet cinq cent mille dem Maroc di fay di fay sa mutilation cent soixante mois loolu boo amul woon làmb doo ko def mbër la sama grand la suma lépp la champion man man buur man dama ko bëgg parce que jàmbaar la waaw billaay wallaay bu man ko doon supporter parce que gaynde la day taxaw xeex bëri mosu wala si làmb ñàkk fayda billaay wallaay soo waatee beneen combat bu waa mbur gi yàlla ko yàlla mbay ndam ah, léegi waaw jël bi jël bi ñëwal si jël bi jël bi waaw foofu noonu foofu foofu damaa jàpp si ngémb li xëcc ko mu door a génn génn ma xëcc ko ma xëccee léegi mu door ma épirkil bugguma jël koom quoi léegi ba mu ma door a épirkil ma si gis sama léegi moom muy daw daf day flexionné léegi moom yëpp pour tuur ma ma génnee sama loxo jël sama bopp bi teg ko ci loos bi te tànk bi daa koy ci sànni ko. waaw loolu mooy poto lampe la dëgg poto lampe yi. loolu mooy poto lampe poto lampe buum ah, yi waaw. mooy buum yi waaw waaw poto lampe yi la. Ah, waaw gis nga bu daw na jël na plaqué na def na lépp. Mm. waaw mais liggéeyam mm. liggéeyam moom soxla mm. xale moom. xale heure liggéey rek rek. làmb jëm tëkku warul def dara. gars yi nañ liggéey rek ku liggéey rek di nga di nga bëree ñëpp. man loolu laa xamul loolu laa gëm. Ah. man instant bi ma toll nii dama toll si liggéey. waaw dama toll si jóob pareegu ma. Ah. nekk gu ma mbër laa bëgg nekk. Ah. waaw Boña lan la conseil ci hmm. na ma 500000. Ah, waaw di nuyu bu baax. Hmm. waaw waaw woon na ma dama ma tey ma tey dal. xam nga bàyyi bërëb yi. waaw Boña sama waay la. waaw di nuyu jabaram day mari jàpp na si tam bu baax ñoom xam nga ñoom Kanji Tafa Kanji. Hmm. ñoom góor yombul Assane Fall góor ba textile xam Masata sama papa Masata tey géejawaay xam nga. maa ngi nuyu itam euh, booy Serigne Gambi jëlal na ma bologu bee booy Fallou jëlal na ma bologu bee ah Assane Mbodj jëlal na ma jàpp na si. jàpp na si bu baax a baax waa gars yi dañ ma jàppale. waaw du nuyu waa Géewaat tey dama ñëw ba stade jooy. waaw xam ne waaw dama waaw. waaw dama xam ne daanu waruma daanu waruma daanu. Mm-hmm. waaw mu doon dee sax waruma daanu. d'accord ñu ne Niang bu Ndaw da doon natt boppam. fee ca euh, nu mu tudd stade du bari tey ba nga ñëwee nga xew xewle nga nekk xale dëkk biir Géejawaay mu nekk loo xamante ne su ma juumul Balla Gaye moom moo ko fiy def tey ñaabu ndaw tey jël li nga xamante ne moom mooy risque def ko mu réussir loolu nan la la def Balla Gaye su ma kilifa la dama ko nuyuwaat bu baax di ko ñaanal carrière bu rafet mm-hmm. waaw di ko wax ñun ñoom seen rakk lan mm-hmm. a dara muy Sa Thiès mm-hmm. man su ma nee di benn mbër si sax yàlla yem fii man bàyyi daaru laa borom daaru waxuma loolu waaw dama mel ni nga mel loolu la ma borom daaru digal borom presse bi dama maam maanaam dama jox waa cër géejawaay liggéey wan leen liggéey wan leen fulaak fayda ma mm. xam ne man fu ma dem dañ may topp mm. gars yi naan du fees mu gëm sama boobu rek mm. gisoo gars yi kenn jàpp si moo tax sax aw ma ay zëmi aw ma ay zëmi war naa am ay cent zëmi mais xam ma rek waaw moo tax mu demee noonu mais su ëllëgee dina si ut ay zëmi bu baax góorgóorlu si di sant waa Géejawaay bu baax man xale laa ma war a jàppale Géejawaay la tuddee jàppale. waaw non non dañ ma jàppale rek. Oh, dañ ma jàppale. da nga doon bëree pare da nga doon am ay bor bii nag. am naa bor un million un million deux cent ah de. <laughs> Ah, ci biir tamit waaw barki Serigne Touba Mbacke. mais ñaar kañ lay tàggoog bor yi. Daaru Nooy parce que wala moo tax. Ah. man dama nekk ni koo xamante ni man bañkat laa jàmbaar laa bay daaru laa du ma xaar nit di indi alalam may toog di xaar nit mun na ma faussé man su may ñëw jël sama alal def na ma war a def ku ma ci fekk si. da fekk si ma si. mu ci fekk si ma xam ne ma xam ne fekk woof ma si man noonu laay dundee quoi du ma moo tax may dem lépp def waaw mais nag lu may wax laay waxaar Guédiawaye suñu ma jàppalee ma nekk champion suñu ma jàppalee wu seen doom lañ seetaan léegi règlement CNG bi nan nga ko dundee règlement CNG ñoom suñuy père kilifa lañ yaa ngi dégg mun am leen sut mais ñoom bu ñuy def règlement dañuy war a woo ñun acteurs yi ñu def ban ñu toog ñu waxtaanee su papa lañ mm-hmm. parce que làmb ñun la quoi ñooy acteurs yi mm-hmm. yaa ngi dégg buñ toogee nag ñaar mu ndaw ah lii lañ gis règlement bi kat léegi lii gis-gis xam nga ñun ñu wax suñu xalaat donte sax ay xalaat lañ moom mi génne seen xalaat ñu teg si table bu xool xam nga defar mu rafet parce que ñoom tam làmb lu baax lañ ci bëgg waa defar mu baax ñu suñ kañ peel ñun ñu ñoom lañu defaral mais tey tey dama ko daan ci vaar bi waaw ak tam ñuy ñaan maanaam ki yore may pour nga dugg si géew bi bu dee dañu kon dañu yor micro yoor yor waaw yor ah, kóol yooyu waaw waaw nañ nañ nañ nañ aj niveau bi wala mu dépassé la yooyu quoi loolu loolu méttiwul loolu séerul paa boobu dafa yor micro bu sooy rek mu wuyu ah. te day taxaw di yuuxu ba sonn du la dégg <laughs> ah, waaw nañ aj niveau bi quoi waaw ah, loolu séerul waaw na mais man moom làmb su lu ma la wax rek man entraînement laa gëm waaw ak billaay wallaay taala kan la niiru waaye sama papa kii sama père la kii moo ma juddul fii kii dafa dafa doon fekk ay jamono ma nekk xale may dund leneen dem di ànd ak gars yi di dugg xam ma xam ma di dugg si lu nekk mu dem ba sama yaay na sa doom ji xam ma waaw kalaamee ma sama yaay mi ngi nii mu bàyyi ma fen ah, na sa doom ji xam ma fu muy fanaan fu muy dugg boobu xam rek esprit xale te boobu lii la ma bëggaloon man liiru sax ñàkk moyen sax moo tax maam maam déko demoonu bëggoon naa ko jënd jësinee rek ay montre rek lépp waaw te te liiru xoolal dama koy décoré waat kii amuñu fayam ah, joxuñu ko dara daa am amul waaye kii kii kii lu muy bëree. waaye waaye kii bëriwut ak kenn bëriwut ak nit. kii niveau am maanaam liiru. Ah. niveau am dépassé na. lekk na avance ah, dépassé na ay takk ngeem. waaw lekk sa avance yaay ñaar kon bu naree takk ngeem. ki tax lu bëree ah bu naree bëree ñun ñu ngi nii ñooy rakam. waaw kon bu naree bëree nga jàmbaarloo xale. waaw moom baax na bëriwut ak kenn kilifa la kilifa la. Hmm. yéen a koy jàppee nii mais loolu kilifa la. du n'importe qui.